waaye nee na li ñuy njëkk a def mooy li gën a ñor te mooy ñaanal la yàlla mu sàmm la ndax moom junj na ko ci ci ci waxam léegi bi muy wax ndax bi ngay wax léegi junj nga ko nee na euh, ci murit sax la wax ne seen seen liggéey day dafa war di wéy rek mi nga wane na ne murit seen liggéey seen dund gépp lañ ko natt bàyyi wuñ ci dara waaye sëñ Fallou dafa waxoon ne murit du du wàcc day soppi aw liggéey wax ne murit de wàcc waaye day soppi aw liggéey moom loolu mooy li wax rek mooy li président Abdoulaye Wade wax rek ah, ñu ngi koy bëggee nag nee ñu ngi koy bëggee ñu ngi bëggee président Abdoulaye daan bëggee ci moom na nga xam ne noonu lañ daan bëggee ci moom dafa yokku mbégin woowee day dafa yokk waaye dara wàññi ko waaye dara wàññi wax na fi léegi ni ñu daan gisee ca Ndakaaru wax na léegi suñ diggante nañ daan gisee ca Ndakaaru euh, waaye waaye euh, lépp sax mëneesu ko wax lépp na lépp mëneesu ko wax tudd na kër gi tudd na kër gi ak mébal yi tudd na mébal yi lu ci ne def na ci moom mii lu ci ne def na ci bariwul oh, def na ci waaye waaye li gën a am solo nag mooy. waaye li am li gën a am solo nag mooy. ni mu def sëñ Tuubaa. ni mu def sëñ Tuubaa. te. te nag. fésal ko. fésal ko. ba ñëpp xam ko. ba ñëpp xam ko. taalube. taalube yàgg. ku dul taalube ku dul taalube. lépp. ñëpp xam nañ ko xam nañ ko loolu. dafa am solo loolu nag da koy topp. loolu nag na nga xam ne lu lay topp la. te du tàggoo yow. te te du tàggoo yow. te mukk mukk. léegi sëñ Sidi Muxtaar sax wax na ne. sëñ Sidi Muxtaar Mbakke mii sëñ Tuubaa sax wax na ne. loolu sax boo gisee ma di fii fii nga jëm a tax. soo gisee ma ko ciy dugal sax loolu fii nga jëm moo tax. te te te te te bokkuñu bokku bokkuñu wér na te ñooñu ak ñun ñoo bokk génn kër te bokkuñu wér boo boo jógee fii boo jógee fii mu ngi jëm Tiwaawan yaa ngi jëm Tiwaawan euh, ma ma ma ma ma ma li ne li sëñ Sidi di la wax mooy bëgg na ñëpp bennoo daa bëgg ñëpp bennoo loolu moo tax moo tax ma xam ne mu jógee fii ci këram mu tax mu xam ne boo jógee fii ci këram sa kër nga jëm sa kër nga jëm dafay am solo waaye yow daal waaye yow na sa xel daal na sama xel daal la waxoon démb rek la waxoon démb rek moom la ñuy waxaat tey moom la waxaat tey dara yokk rek. li ñuy wax ci yow. li ñuy wax ci ak cofeel gi ñu am ci yow. day yokk day yokk. waxuma wàññiku. waxuma wàññiku de. waaye du yam fam yemoon rek. day yokk day ma lay wax nag. lii ma lay wax. ndindi laa koy waxee de. xam nga ndindi. te xam nga li de. xam na li muy hmm. de. président xam na xam na ne ne sëñ Fallou ko sanc de. xam na ko sos sanc. te sëñ Fallou de ku ne xam na ko. li ñuy waxante nag. li ñuy du du fu dul nit bi. nag doy doy na ci. na ne loolu doy na sàmm yàlla na ak yu bare bare ci nun nun tuuti na ci nun